alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. lay no def. ay sant ya, bu baax alaaji. Ya nga am jamm bu baax. ay sant bu baax alhamdullilah bu dolle ma jël. dana dolle inshallah. Inshallah. Ya ko dana dolle inshallah. Ñepp am jamm. dana dolle inshallah. Yalla dolle dolleeku ñepp am jamm ci kàttanu borom bi. amin ya rabbal alamin. Yalla ya mën nako ko am nako ko nako def. amin ya rabbal alamin alaaji ah, profito ci occasion bi di jale sama ben mak sama ben tata sama ben yaay ju bax di mm. tamay muna jenn euh mm. ah, ndaysan bax lol bax lol fan yee rek la toog di ko tuddu ci télé bi ah, sol ben voile bo xamni ñew ñëw ko grand bu fi sax laaj nga na man ni nga bëggee sa yére mère yenn saay ndaysan ndaysan ma ne nag yére bi dama ko jox valeur ndax mom gorom ci bopam lañ doon mo doon ngenté mm-hmm. mu jël voile bi ne man dama koy yelu mamam ndeysaan muy teraanga boo xam ne neex na lool sama xol tuuti la jottali ma ko waa groupe xap yëpp ma leen koy jaale ñu boole ma nag seen biir di maire yu baax baax bëgg ma lool alaaji. <laughs> groupe maire nga bokk léegi. groupe maire da la sama jaam bi boole ma ci moom it kenn du moom ci moom bëgg ma. ta may mën a jéen ma koy jaale waa Cambérène yëpp di ko jaale njabootam di ko jaale ñoom tuuti la ñëpp yal na ko sunu borom xaare aljana yi gën a kawe. min jéggal ko te àtte ko ci yërmandeem. min yaa rabbal amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin hmm? yàlla moom day sànn woogu de kenn nu mun tax a jóg moom alaaj hmm. lu mën a am ci àdduna hmm. fii lañ koy bàyyi te muy dëgg nu ñu mënti toll dañuy mujj seey ba jeex wallaay dëgg la lu ñu mënti am duñ ko jariñoo fii kenn faatoogu fi ñu jël oor wala kurus wala ngalam wala sa yëre yu baax. boole ko mu gunge la boole la moom mu gunge la te bu ñu ko defee sax dafay fay maxe fa ndax amoo ci njariñ. Mm-hmm. suñu am-am fii lay des suñu tolluwaay fii lay des suñu cër fii lay des cër ba ñu am ca yàlla rek nag moom moo ñu topp ndax ñun loolu la ñuy liggéey mu topp ñu ba barzak. Mm-hmm. yàlla na yéex suñu liggéey ci àdduna yàlla na am solo ba mu ko ëllëg yow mal xiyaam incha allah. Mm-hmm. te mu yéex. adduna bi dafa toll foo xam ne. Mhm. dafa tëradi. wallaahi. te yaakaar naa bu ñu ñu war a wax bu ñu waxul rek. day doy waar Amary Seck maa ngi lay nuyu ñun ay porteurs de voix lañu. dafa am yoo xam ne noppi ci waruñu. alaaj mooy tusu tay bi rek xam nga démb posé naa la question ne la alaaji ndax lii buñ ci waxee du gën a xam ba taal bi wala. Mhm. ndax jar nañu ciy wax ndax buñ ci waxee du jox mbir mi benn ampleur bi nga ne ma déet dafa ñaaw dañ ci war a wax. Mhm. nga ne ma déet dafa ñaaw. dañ ci war a wax dañ ci war a wax. Euh, ma man lay maa ngi delloo maa ngi delloo nit ñi. Mhm. bu ñu demee ci page Facebook. Mhm. bu groupe des médias bu Sen TV. ngeen dem ci émission suba teel. bu mercredi. 15 décembre. mercredi 15 décembre. 2021. Mhm. Mhm. jour Asma ñëwul Fatmata Diop moo def émission bi. Mhm. Pa Assane Seck ngi invité woon Momar Mbaye. 1974. boobu ñun plus juddooguñu. Le quitter Sénégal. dem France. Ligue Alstom. muy ñiy defar wateraay bi ñu leen inauguré démb. moom mooy concepteur projet bu wateraay bi. Mm-hmm. ak yeneen projet yu wateraay yu Sénégal yépp mm-hmm. booy waxee ci terre nit ñi ni amoo preuve wala montreel preuve bi moom mi concepteur bi defar ko liggéey fa lu ëpp ñeen fukki at bu fekkee doyul comme preuve ci ay waxam bu fekkee d'ani wagon bi jarul ji lii lay jar jarul jarul lii joxe ay exemple joxe ay yeneen chantier yu mu réaliser faneen nga dem ci réew yooyu fekk ko fa bu fekkee moom doyul comme preuve preuve amatul ci àdduna moom moo gën a xam wateraay bi ñu doon inauguré dem ñi ko doon ñi ko doon inauguré moom moo leen ko gën a xam bu fekkee moom doyul preuve preuve dootul doy émission boobu mu ngi am àllarba fukki fan ak juróom ci weeru décembre bii nga xam ne jeexagul ah, benn waay bu ma woo sànq na ma da ngay manipuler askan bi

ki liggéey wataraay bii dafa conception bi defal projet bi ñëw fii dëggal ko émission bi boo fa delloo di nga ko gis Maman Mbaye la tudd sénégalais la 74 la fi génn jàngi conception bi moom moo defal concept bi nii bu fekkee moom ay waxam doyul comme preuve ma xam ne kenn amul preuve ci àdduna léegi nag émotion yeeg féete gi ci wàllu politique doom ñun duñ duñ duñu manipuler bu ñu doon manipuler génne yeneen secret yi gën a lalu ci biir te ñu xam ko te ñu jomb ko wax ci biti ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni bii leen bàyyi bu seen gémmañ nii ne seen biir fees rek yéen ngeen foog ni senegal a ngi dox lépp mujj lépp mujj wul bu la buñ la joxee un million nga soo ko def sa poche am na koo xam ne fukki dërëm tëna ko boo nekkee gor nag da ngay gestu ki nga xam fukki dërëm tëna ko man loolu laa fii nekke man tulaay su ma nammee man bàyyi ki fukki dërëm të ànd ba ba milliard bi ma bàyyi média bis ni ko tey Sénégal yi dañuy souffrir bu ñuy séddalee alalu askan wi. dañuy séddale ci ak yamale dañuy séddale alalu askan wi ci ak yamale. dañuy séddale alalu askan wi ci ak maandu tey bàyyi leen bu ngeen lekkee changé seen i oto changé seen i garde-robe ñu leen di wooyu monsieur ngeen aj seeni i mbagg foog ni yéen a rey golo gi. Hmm. ragal leen yàlla ci ñi ngeen jiite. ragal leen yàlla ci askan wi xiif ragal leen yàlla ci askan wi mar ragal leen yàlla ci askan wi amul luñ jëndi tund waaye topp seen bopp rek. bu nit waxe ci côté askan nga nan ko damay manipuler man bu ma doon manipuler xana ma fété nguur gi ñoño gëna ñoo and ak ñoñu manipuler gëna neex di man contre ma nguur wu ma nguur bu fekkee nak mo wax mbay limu wax do na ma mëno prouver li nga wax ya ñu may yalla dama ma mama mbay nek expert bokk ci concepteur boobu rek bay ko ku bok ci na dem mo mo tax mu jox ko émission bi sénégal yépp ay dégg xam mom jëlu ma sa wax mais sénégal yépp la ni dellu len ci suba tel ku bëgg ma yoni la sax lien bi émission bi ma lien bi Facebook la mercredi 15 décembre Je Mbaye invité par Assane Seck kooku li wax bu doyul comme preuve ci ab journaliste bu nga sa xalima bu comme preuve ci ku société civile wala doyul comme preuve ci ab politicien nga sa xalima dañ poste ne ngeen bàyyi leen di jàkkaarloo journaliste yi leen di wax dëgg man du ma sëñ Saliou man boo ma ko duutee dama la koy duut ba mu suus man du ma mi leen di kii ngeen naan ko ay waxoo dëgg ak génnal ñu xeex bon bu ma boo laajee génn ñu génn raag bu dugg bu vocal waaw waaye yow du jàmm la rat ràccal jàmm rek bàyyi leen waa ji sant kañ yi dafa yabaati quoi naa ma di manipuler askan bi lima ma wax mooy terre bi mama mbay mi moni bu fekkee dafa nekk euh, technologie de pointe ah dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg comme bi am Arabie Saoudite te man bi mu wax Arabie Saoudite man maa ko gis moo nekk Màkka Jidda benn cinq milliards du ko weesu maximum trois milliards maximum cinq milliards te moom moo ko liggéey moom bokk ci ñu dafa concept wateraay boobu noonu wax ko loolu doy ma comme preuve mu ni projet bi am na dëkk sàngam ma dem dëkk sàngam boobu gis projet bi ma ni ah kon kat grand bi wax dëgg la mu ni wateraay bii nii nekkul ni courant lay doxee à cent pour cent am na benn partie gasoil dama koy weddi te moom mu defar ko mu bokk ci ñu ko defar proposé ko waa Sénégal yow nga tëdd rek ñu jox la benn salaire cinq cent mille ak wata nga féete ci wàllu politique naan dañ naan kii day manipuler bàyyi leen seen caaxaan yi ragal leen yàlla ci askan wi ragal leen yàlla ci askan wi am am bi continué wul am am bi wéyul bàyyi leen bu ñu leen joxee dix millions ngeen fàtte askan wi wan leen ginnaaw soppi seen melokaan ak seen cosaan di attaqué ñiy xeexal askan bi man du ma manipulateur lu wax lépp dëgg la man lu ma la wax dëgg la man la amul benn métier bu dul li ma li ma li ma wax ak combatis tey ci ngoon dama koy yendoo gëstu su ma demee ba jaaxle xamul lu ma xam damay woo mag yi sage yu mel ni ay ñoom bàyyi duudu wàdd laaj leen xalaat ci tomb yooyu ñoo li ëpp xam-xam ci côté yëpp wala ma woo nit fekk ko fa mu nekk laaj ko ci am ay idée bu laajee ci pêche bi ma am ñu ma woo bu dee ci walu mécanique nga am ñu nga wo Mantoulaye 2000 ba légui maa ngi présenter journal xam nga journaliste moy le présentateur moy la moy lantinoor mooy comme yow revue de presse boko défé 1 an li nga am ci information kenn du ko am ku la wo ci débat nga joxé parce que journaux yépp ngay lire pendant 365 jours chaque jour nga nga lire quotidien yépp commenter ko mais yow kooku buñ la lajé boo mënut a wax sa xalaat ci ni réew mi doxé waay waay waay waay waay waay waay balla buy dé bàyyi leen may leen nit ñi jàmm bàyyi leen nit ñi xeexal askan bi di ngeen ngeen fexe leeral waaye yow ba nga waxati ma manipulateur. <laughs> ala kii moom rot la ko waxati. yow monsieur kanji waxat ma manipulateur nga xam kii jarul tontu sax. yow daal waxal sax laati ci teel bi am yoo yoo xam ne moom judd doon ay mina ay manipulateur ñepp dañoo dé <laughs> wayati. alaay léegi nag yow demal daal yow demal comme yow nee nga da ngaa ay demal page bu seen TV.

moom lañu war a jël ci téléphone bi deuxième partie bi te comme bi am na fi trafic day jàll. ngay jël namm ko de. namm nañ ko ñun ñëpp ko namm temps yi moom daf ñu bàyyi jour semaine eh. waaye waaye noonu la dafa jël yoonu boppam daal sama papa waaye baax na noonu la alaaji ñi ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax Pout Diack. Pout Diack. Hmm? foog naa noonu la tudd Pout Diack. Hmm. alaaji coow lii njëkkoon na fi am. ça fait un an côté un an presque un an et quelque mbaytaar xuma interpellé won na ma ci mais comme dafa xawone sensible trop trop trop trop trop mané est ce que duñu bayyi mu sedd parce que radio day gëna yox ampleur wax mais bii nag mëne su ko bayyi ndax dafa jéggi dayo ndax fofu ñi ñi woyé géer ak géwal ngeen balma ñoo fa ne. ci mille 2019 am na ci parti géwël yi ñu faatu woon ñu ne sëgu géer yi duñ leen fa denc. wax cay wax yoo xam ni man danay bàyyi ñoom ñu waxal ko seen bopp ndax waxtu giyaana jombale naa ko sama làmmiñ alaaj ji ñoom it ñu bàyyi mu sedd dem ba ci seen wetu kër yi ñu denc fa kooku ren nag seen beneen yaay faatu alaaji ñu ne leen seen yaay ji du ngeen ko denc suñuy sëkk ñoom ñu dem ba seeni tooli maam dem ca préfet dem lijjanti ay këyit pour am seeni sëgi bopp ñu ni leen dëkk bi ci boppam la ñu ne leen du ngeen fi denc seeni néew maanaam ngeen baal ma géwël yi amuñu droit denc seen néew ci dëkk boobu di Pout Diack oh. ñoom nag ñooy wax su ma paree dinaa la may nga commenter ñu door a woo suñu papa Iran incha allah mu intervenir ndax diggante géer ak géwal mm-hmm. bu dee ñoom ñaari parti yëpp ñoom diine la ñu woote. Mm-hmm. te nag mbir mi mi koo xale ni ni ñuy waxee mi ngi bëgg ñaaw mi ngi ñaaw bay laal ci seen ngëm-ngëm ndax boo déggee parti ñii li ñu waxee rek nga xam ne am na loo xam ne mi ngi raam te bu ñu ko bàyyee mu dem dina weesu diggante géer ak géwal waaye dina laal ci suñu ngëm-ngëm di diine ñu déglu leen. ñu ñaxtu wax li leen metti suñ paree ñu ñëw ci commentaire incha allah chimère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 ku seen oto la ñu ku romb nit ñu yóbbaale ko ku romb nit nuyu ko waaye mënuñ bëgg mënuñoo def leen ñun nag dañoo sonn ci ñoom maire baa ngi nii depuis démb ci quatre heures la gaañu mu ngi fii ñu teg boobu ba tey ñu ne du ko fi police ñëw na ànd ak ñoom sous-préfet ñëw na ànd ak ñoom lii ban dëkk la nekk la bëgg a xam lii na ko tasaare mu dem fépp ba àdduna yëpp yëg ko bu fekkente ne géwél amuñu ko amul droit ñu suul ko Sénégal Euh, Pout Diack dañoo am problème parce que dafa am ku fa faatu barki démb. ñu war ko suul waa dëkk bi ñu ne kenn du ko suul euh, mbir mi euh, nan la demee. waaw nu mu demee moo di ne ñun suñ doon suul bu njëkk. Uh-huh. Ah, dañ faa gisoon ñu doon remercié ñu fay suul ñaari néew ñaari yoon ñu ne kon ñun ah, ñu ne doon géwélal waaye ñun géwéluñu kenn ñun dañ ñu xam ñun xamuñu loolu comme que ñun ñu ñoo jëkki-jëkki surbu ci tarbiya ñu xamal ñu yàlla bu ñu xam yàlla ba ñun mënatu ñoo def kenn ku def ku jëm ci yàlla moo tax ñun mënatu ñoo def ci fi àddina ñun bari nañ ci fi àddina ñun lu ñu bëgg mooy ñu def armeel ci suñu tool ñu am loolu moo indi lii ah, waaw léegi moom euh, gaañu na ki ki kii gën àdduna góor la wala jigéen. jigéen la sama yaay la. sa sa yaay la mu gën àdduna ñu ne kenn du ko suul ci dëkk bi. ñu ne kenn du ko suul fii nii ci ñu bëgg a suul. ah ci dëkk bi fii. waaw waaw loolu dama koo ma la en fait loolu dafa am aada foofu wala dafa am loo leen di. bëri foofu wala aada la voilà mooy aada bi ma la wax aada bi itam li ko gën a su fekkoon maam lu ñu mooyoon ba léegi muy ay seen affaire ndaw raabin yooyu ñu doon defal su fekkoon ne ñoom ñu ci waaye ñun dañoo bàyyi loolu sànni ko ci àll ba dem ci wuti métier bu ñu demee wuti métier ba am métier nag toog suñu métier doyloo suñu ñaq ñu kenn dara boo boo boo ñu woy ñëw ndaaw ndaawtal la ba ko yow xew bu jeexee nit ñi bi boo ñu ko waxul nag am fi bu ñu taxaw ñoom bokkut moo tax moo indi réew ji moo tax ñu bañal Euh, mais su fekkoon ne suñu li suñu maam nangu woon ñu ngi ko nangu ba léegi kon lii du am ku baax lii rek la du leen lii lii donga la mais loolu lañu woon gannaaw ñun kon ñoom dañoo jàpp ne ki kii génn àdduna géwél la ñoom te ñoom duñu bokk géwél euh, armée wala waaw super bi wax ko démb de ko ne waaw comme kañ woo naa leen ci waxtaan ci puudar ne léegi dama leen a bëggoon a laaj ndax ñoom mën nañoo bokk mën nañoo suul léegi ci seen armée li ñu ne déedéet ñu ne léegi mënuñoo suul ci seen armée am ay armée seen seen seen ci seen tool fan ngeen ko teg ñu ne amuñu autorisation am ah, ne ñu autorisation yéen ko topp ñaari at a am ci biir dëkk bi te boobu léegi affaire mënta réglé monsieur le maire moo yor wàllu suuf Alioune moo yor suuf nangam mais loolu yaa warlu suuf yëpp am na kilifa kilifa boobu nag nañ ci mbir mu wax dëgg bu dul loolu reyante am ci dëkk bi de te wax naa leen ñëw ngeen ate waaye di ngeen ñëw ndax bu ñu amee ko ci liggéey dañ suñu tool maanaam na leer nan na leer ba ci na ko di kon donc néew néew bi am na ñu am na ñetti fan si dëkk bi kenn mënu ko ndax problème la mu fanaan ñuy discuter mu fanaan léegi si si dëkk bi ngeen ko bu ñëw denc wala man maa ko ne sama yaay comme que ma xaraam na sax man ma yëkkati sama yaay di ko suuf si suuf si suuf si sax si suuf tuutal gi gisa man maa ko yëkkati delloo fekk sama baay jële woon falaa ko def euh, foofu fan la euh, euh, pour jag la wala pour jag ne ah pour jag la rek ba léegi mais mais benn ci village da ngay génn pour jag dugg pour jag ne ah kon affaire bi pour jag la amee woon waaw pour jag mais pour jag ne la mais benn village la quoi fi ñu ba mu ko réglé wul léegi yéen est-ce que yow yow soo fa amatoon keneen ku gaañu est-ce que di a denc ci dëkk bi daf mel ni problème bi bëri wul réglé wul waaw moom la ñu wax sous-préfet dañ ko ne su fekkee ne réglé wul leen ko bu la même chose di nga ñëw atewaat loolu laa ko wul di nga ñëw nga waaye ate woo ndax jeexul dinañ suul ndax parce que du lu ñu gën na parce que dan nañoo ngémb waat ndax parce que la ñu waxoon am c'est pas la ñu gën nañoo ngem war nag pour bu amee ñu doxaat seen sëñ duñ leen xaar sax ñoom léegi ñun dootu nekk suñ si ñuy waa dëkk ñun dañuy suul yoon dóore yi léegi bu ñëwee liggéey lu mu def baax comme que dañoo nekk ay bu fekkee dañoo nekk ay Mauritaniens ñu xam bu hmm. fekkee dañoo nekk ay Gambien ñun ñu xam bu dee nekk Sénégal mais léegi yéen yéen ñeen di tere ñu yéen ngeen suul bi ñooñu ban xeet lañu ñooñu ay géer lañu wala ay géwél lañu. lan ma ne yéen ngi koy tere pour yéen ngeen suul suul boobu. ñooñu ay géer lañu waaw. ay géer ay géer lañu. ay géer lañu ñoo de te géer moom ci dëkk baaxul géer. géer ku ko xam waaw mais est-ce que ak dee tax mais gée géer yooyu ñoom seen maam ñoo ñoom ñoo moomu suuf soosu wala lan. déedéet moomuñu ko woon suñu maamaati maam ñoo joxlante woon suuf su seen maamaati maam fekkee wuñ ko ba ay ñetti ba bàyyi ñëw ngay door di naan suuf suñu suñu maamaati maamaati maam ñoo moom suuf suuf su ko defee ne maamaati maam fu mu joxee suuf li nga fekkee woon noo ko mën a laaje ba nga naan ñu ñoo ko noo mën a moomu suuf xanaa autorisation ku ku ju si kaw suuf am nga autorisation si ma la ay est-ce que ñoom dinañu nangu kon yéen ngeen takkante seen biir. non non ñun loolu maanaam ñooñu ñoon bu ñu bëgg si ñun ñoo soxlawul loolu si ñoom ndax parce que man ba man dem seen jumaa si dama koo jombale sama bopp. ndax parce que sax dama koo jombale sama bopp gisuma fa ab jullit. yàlla moo ne yuraaxuuna solatan illaa qaliilan yaxaafuuna wa huwa maahum gisuma fa ab jullit boo fa demee jullit ji doo fa ab jullit. moo tax ñun dañu soxlawu si seen dara tos dara lañ leen soxla loolu. waaw mais loolu loolu la mën a nekk yéen ngeen bokk dëkk dëkk bi doo doo leen bokk fi ngeen suul seen i néew loolu loolu ñun duñu mën duñu mën a wax ne du am parce que tey tey tey tey nit lu mu décide ne moom lay def loolu lay def nit ku kon kenn ku ne ak sa choix ñoom loolu la ñu choisir waaye man ki nga xam moom lay denc nii du sama mbokk sax hmm. ki may denc nii dee bokk bokkuñu askan sax moom maanaam yow so maanaam yow so soxna bokk leen xeet quoi déedéet te teewul yow bëgg ma bëgg ma ñun ah. yàlla ñu boole déedéet ab julit man ba dama ab julit moo ñu boole waaw ah. te ñun loolu lañ xam te loolu lañ gëm loolu lañ gis ci alxuraan loolu lañ gis itam ci Ahmadou Bamba bu ñu wax Cheikh Cheikh Moussa Cissé njame daaru ñun koku moo ñu tarbiya bu ñu xam yalla bu ñu xaman yàlla bu ñu àgg ci yàlla jàkkaarloog yalla jiite ngaas moo tax mënati ñoo gis dara ci kaw suuf ko dul yàlla moom la gis ku ñu nara andal nga dem ci yalla ñu ànd ak yow ku ñu nara andal nga nara a dugal sirku sa diggante ci yalla ñu bàyyi lag lool te dox tam ci yalla ñun Ahmadou Bamba mo nandal suñu sang ci sang nandal ñu luma nandal Cheikh Rafal moo tax ni ku taxaw ci keppaar boobu mënatu ñoo ànd ak yow sëriñ bu taxaw suñu kanam te di ñu nan hee ñu ne ko ndax xam nga yalla nga ne déet xamut yàlla mën man ko mënuñoo ànd ak yow mu ko xam yalla lañu mëna andal lool àndal loolu mooy problème moo tax ñoom ah, mënatu ñoo ànd ak ñoom waaw xanaa dëkk bi amul ay kilifa amul ay borom xam-xam yoo xam ne nii ñoom mën ñoo toog seen biir toog ñu waxtaan pour ñu pour ñu eh, sëñ bi kilifa dafa jafe kilifa dafa jafe li tax kilifa jafe moo di ne ku ki ñuy tuddee ne ab oustaz la wala imam la te mënoo firi alif laam miim te imam boobu luñ ne ko lan lañ la ko fale imam bu mënu firi alif laam miim luñ la fale ah kon daal yéen seen problème daal yéen kon état ngeen ci xaar pour mu ñëw pour mu jëm ko rek la parce que bu dee imam ñoom dañoo gàtt loolu loolu waaw damaa ko ci liggéey nii sax xam naa il faut que ñu gàttal ko ndax dana ma xëy sañ sanc ni man maa ngi nii mm. sanc ni damaa profité pour delluwaat feneen xale yi laa bàyyi foofu lu am lu may àggale nii ah. mais mbaa amul coow rek amul ku ku kuñ fa dóor gaañ ko wala xeex déedéet non non loolu amu ca ndax parce que man comme que man maa ne woon yoon dinaa la xaar mm. ba nga ñëw bu mu ñëwee itam man loolu laa ci bëggoon pour maanaam beneen benn fitna bañ cee am ndax parce que boo xaaroon fitna itam da ngay am naqar amaat beneen naqar man ngaa gaañi yoon teg loxo wala ñu gaañ la yoon teg ñooñu loxo man loolu laa ci doon daw itam moo tax man leen pajante loon yoon bu ñëwee mu def liggéeyam ndax parce que ñun dañoo nangul yoon dañoo xam dañoo yegg ak waa yoon yow ñoo xam ne ñu ngi yoon moo tax duñu xëccoo bi yoon yegsee na may leen lañ ne nañ ko may d'abord kon daal yow sa yaay moo gënal àdduna nga bëgg ko suul si dëkk ba waa dëkk ba nii doo ko fa suul waaw waaw loolu woon waaw waaw na de. doy na waar ñaaw na. ñu ñaaw. xëy na ñoom ñi bañ ñu suul ko fa ndax mi géwal la. Hmm. xëy na ñoom dañoo xam ne foofu lañ leen di suul. xëy na ñoom dañoo am certitude ci ni foofu mooy nekk seen bàmmeel. baax na Mantoulaye lay kenn xamul fu ñu lay suul. baax na. benn jour maa wax fii ak El Hadj Ahmed ñi yàlla boole ñu nar a dund te duñu am bàmmeel. wala ñu bokk benn bàmmeel kii jóge France kii jóge États-Unis kii jóge Chine kii jóge Liban kii jóge Arabie Saoudite kii jóge Canada ñoom ñëpp ñu wàcc Istanbul bokku ñu nationalité bokku bokkuñu xeet bokkuñu réew ñu làkk dañoo nar a bokk bàmmeel ñu dugg ci benn roppalaan destination Nouakchott mu ne lay di tëmbax ci géej gi. yem fa ñoom ñëpp ñoo bokk benn fa ñuy wax bàmmeel. Mhm. mais amuñu sax bàmmeel. la joolaa bi nag ñi fi. la joolaa ñin faat ñin fii mbaaw. waaw ak léegi dañoo dem dindi fa kii euh, waxuma la mais côté diine sax ràññeewut ràññe gëw ma ne ràññeet nañ leen. cimetière mix. Hmm? mix hmm? dañoo jël ak denc parce que am na ñoo xam ne seen i état sax est ce que taxoon na ñu mën leen a identifier dañoo jël denc. Hmm? xàmmee woo ci julit ba xàmmee woo ci chrétien ba. léegi dama bëgg xam léegi ñun dañuy xëy ñu taf sax kanam na yow. géwal nga xëy taf ci kanamu keneen nekkoo ko yow doo géwal doo géwal géer nga wala yow nee ñuy mayee deret dafa am foo xam ne boo fa demee dañ fay def ñaari euh, euh, salle d'attente ne géwal yi nañ toogee nii géer yi nañ toogee nii ñaaw ñoom bu ñu feebaroon yàlla tere manqué deret bu ñu duggee ci hôpital boobu nekk pour dañ leen di wax ni leen deretu géwal wala dañ ko exiger seen famille nañ ko exiger nag. déet imam ba laajal imam bi bi jël dogal bi bu fekkee imam la. wala ñu fa nekk ci wàllu diine fu ñu ko bind ci diine ah baax ah, bu dee ci wàllu aada nag hmm. dafa nekk débat boo xam ne man moom bokk naa ci ñi koy gën a daw te man ak samay morom dañ cee bari te pourtant débat la boo xam ne saa bu ñu xëyee musuleeku ci réew mi hmm. bii bi def cee rek ba ba jéggi dayoo ñu génne ko mais débat bi saa bu ñu xëyee mi ngi ci réew mi duma may sama doom diw diw laa koy may sama doom du dem fréquente diw diw lay fréquenté sama doom du doon xaritu diw diw lay xaritool xeebaate ci waaso xeebaate ci wàllum néew di doole alaaj bari na koñ yoo xam ne ñi fa gën a néew doole la ñuy tam hmm, waaw la ñuy tam ah, borom immeuble yi kenn tamu leen waaw mais immeuble am alal moom kenn du la tam kenn du la tam ah, waaw lépp na xeebaatee ko indi alaaji boo amee sa alal am sa daraja kenn du xool foo jóge kenn du xool lan nga tubaab yi jàpp may seen doom dañoo xam géwal tubaab lañ wala géer tubaab lañ <laughs> non vraiment Sénégal nag métti na de ci weer ku fi ne. tout cas ñoom en tout cas ñoom daal maa ngi leen di laaj ñoom ñoom ñu di duggee kenn dafa suul meer bi ci sëg yooyu dañu assuré seen njaboot bi ñoom foofu lañ leen di suul. <laughs> billaahi mantulaay muy man muy Karen amul kenn koo xam ne wóor na la ni. Euh, ki njëkk nekk président au Sénégal. yow xamul sax fu muy faatoo ki njëkk a nekk président Sénégal Léopold Sédar Senghor. le 20 décembre bii nga ko doon féete. Mhm. mu def ñaar ki at ci biir suuf. Mhm. pourtant bi muy dund nekk président la dem Joal ga mu dëkk tabax fa armeelu boppam. def ca def ca poème bu neex. ak njabootam bind ko woy ko def yëppam. anam bés bu ma faatoo denc leen ma fii. anam <laughs> mu ngi Dakar kii waaye yow kenn daa xam fu ñu lay suul xëy ne yow dañoo xam fu ñu leen di suul moo tax ñuy siis géwël. yéen doo leen bàyyi jaaxaan. Mm, dafa ñaaw yi mën a sañse. dafa ñaaw li yàlla bëgg lépp géwél du ko bëgg. man toogu lu neex. non li yàlla bëgg lépp géwél du ko bëgg. kër ngéwél. bëgg nañu lekk lu neex. bëgg nañu solo lu neex lu rafet. bëgg nañu xeeñ lu neex. wallaahi ñun géwél yi waaw ñun géwél yi. Euh, bëgg nañu tey daal doon nga géwél. wallaay bëgg nañu wallaay sénégalais yëpp seen loxo ne ay géwél lañu. nañu lu rafet. Mantoulaye géwél bu dee mu jiitu la ca ndeega bu wax teraanga jotee bu jiitu la ca teraanga mën wax lu baax man defar ay diggante ah waay a sàmm sàmm diggante alaaji léeg-léeg nga déglu nit sa xol dagg nga tourné déglu ko ci mel ni suñu papa El Hadji Mansour Mbaye Ablaye mbay Peex suñu papa kii Euh, papa kii. sama doomu ndey Bécaye Mbaye sama doomu ndey Sala Bigué. Sala Bigué Ndiaye Gambie. Haji Bécaye Haji Bécaye Lamine Thiam Dogo. Lamine mi ngi woote sama papa Sala Bigué Ndiaye. wallaahi. ah Sala Bigué après nañ la jël ah. mën a wax lu baax ah Chimère dimbali ñu taf taf trafic ñu daal dem ñëw ñëw ci suñu papa. Iran il faut ñu jël Sala ah. ah, euh, waaw waaw. ku nekk ci trafic bi. allo kooku. Mantou Aba. papa xaaral ñu ñëw ci yow léegi. Aba foo nuyu naa la de jéggal ma maa ngi leen nuyu bu baax. non non maa ngi nuyu ñu tamit suñu géwélu koñ fële Pa waaw waaw waaw waaw. waaw waaw. rafet wax histoire wax démb. waaw waaw waaye yii dañoo baax. ak a ñoo eh, baax Aba ndeysaan ak man boole ma ci ñoom de. ñoom tànn benn tànn calle. Ah. Ah, man kii bi li mu doon mu doon laa doon. mooy sama doomu ah, ndey mooy sama xarit mooy sama soppe. Lamine Thiam Dogo mooy sama mag ah. ma ne waxtu mbooloo yombul mais yéen mbooloo. mu jéem Mbaye Diaw. joyeux anniversaire à ma nièce bébé Aïcha. ndeysaan. dañoo juum de abaa juum nañu de. juum nañ juum bu garaaw waaw juum nañu de wallahi juum nañu. loolu moom parce que ñaata boobu juum. wallahi juum nañu wallahi juum nañu. wallahi juum nañu. Aba. allo Aba. Aba. Et dans des infos soporifiques, sur un ton ennuyeux, le présentateur a les auditeurs. Oh Pardon. Faut d'abord que je prenne une gorgée de ce fanta-là. Et c'est ce qu'il fallait C'est clair J'ai avalé de la lumière C'est une explosion dans ma bouche Ces minuscules bulles à la saveur d'orange coupent et décalent dans tous les sens <clears throat> Retour à l'actualité. Et place à la météo. Comment le ciel sourit après avoir pleuré par un arc-en-ciel <laughs> Fanta, voilà vie en couleur. Coucou le le succès de Jolof Chicken kenn mënu koo expliquer ci réew mi ñi jàng marketing yëpp ñi ngi toog di xalaat nu ñuy expliquer le succès de Jolof Chicken au Sénégal Jolof Chicken ñu ne ndax cafka gi la gaa ñi jaaxle lool ñu ne ndax ñu ko disposé la gaa yi jaaxle lool ñu ne ndax service bi la gaa yi jaaxle lool ñi jàng marketing yëpp étude de cas yi ñuy def ña ngi koy def ci Jolof Chicken ñu ne succès Jolof Chicken daal moo jaaxal réew mi ni succès Facebook Twitter ni succès WhatsApp ni succès Snapchat ni xale snap Nous, ne vendredi 3 tu l'as inauguré Jolof Chicken bu vendredi 3 décembre Jolof Chicken bu vendredi 10 décembre Jolof Chicken bu Louga Wa Louga loo lu mu yaatu yaatu yëpp ñetti koñ montagne Kër Serigne ak Chicken la jum jëm le 10 le 17 Nak, ñu Medina, di ñëw Medina, xam William. Ponti xam ngeen ni Rue 6 moo ñëw nekk Champs-Élysées 6 moo xew ci jamono Médina Rue 6 loolu kañ la yi le 17 ah mbokk yi Jolof Chicken ngi succès baa ngi noonu Jolof Chicken nag vendredi 3 one, vendredi 10 Louga vendredi 17 Médina Rue 6 cay Jolof Chicken loo sax mi mu neex. ak ku comment en teneer nous rek ñu ci fin d'année bi Tekno mu ngi leen di jagleel promotion ci série Pop 5 Spark 8 Camon 18 waaw waaw ci li ko dalee 1er décembre ba le 31 décembre ngir bokk ci promotion bi yomb na jëlal benn smartphone ci série Pop 5 Spark 8 Camon 18 ñu jox la carte bi ngay xool sur place ngir am ay surprise yu amul fenn ay chauffe-eau électrique téléviseur ay moto téléphone techno ak yeneen i ngañaay yu takku fekk si leen ñu ci suñu village Tekno yi ci fin d'année bi Only I'm looking at au soleil. Wally Balagosek est devenu incontournable sur la scène musicale sénégalaise et devient d'ailleurs l'enfant chéri de la ville de Dakar. Ce 31 décembre, Wally Balagosek au 6S à ah, Gaï, Wadjalen, Helcom Bash transformé 6S. Miami, wala Las Vegas. Entrée 10 000, VIP 20 000. Je c'est au 77 856 55 55 chez Oro 77 348 96 12 chez Papachon. 77 623 27 07 Mortal à Sandaga 77 012 52 52 Tijan Dabo Marche HLM 77 056 54 79 El Pacho Tchak Tchak 77 272 18 119. Alune Livreur 77 137 67 71 Boubel Faramarena Pikine 77 355 16 81 Abba Wali 77 956 06 06 Cher Farama Marine Koloban 77 096 62 23 Mohamed Nian NGB 77 095 67 26 Rapidos au 77 234 34 12 Tapis Vert Mermoz 77 676 40 40 Cosmakeup Up en ville 77 225 70 94 Bamba Wali Family 77 392 51 54 à vous le pouvoir d'être génial avec le Galaxy A03 Core. Profitez d'un grand écran Infinity de 6,5 pouces et 32 Go de mémoire avec le tout dernier smartphone de Samsung. À 53 000 francs seulement, le A03 Core est le cadeau idéal en ces fêtes de fin d'année. Faites plaisir à vos proches à un prix imbattable. Ce n'est pas tout, il est compatible 4G. Et eh oui, non Degondo, technologie ngay am faux Samsung rek Momenly. Retrouvez vite votre smartphone dans nos points de vente agréés. Tous nos smartphones sont garantis 24 mois. Prix conseillé, susceptible de varier légèrement selon les points de vente. da ngeen a fàtte seen carte GAB da ngeen war a yónnee xaalis ci nu mu gën a gaawee bul Express Cash moo avec fi application Ecobank mobile wala jees 22 22 jees mën ngaa dugg ci Express Cash defal sa bopp code 8 mën a tax nga génne xaalis ci lu gaaw si suñu ñetti junni point express wala ci gabu Ecobank yi ci zone UEMOA ak nu xaalis bi ngay génne rajo ci lu tolloog ñeenti fukki simili ak juróom ku yëg tukki ak teer da ngeen ba noppi jaar ci valideur yi balaa ngeen di yegg ci bi ngir jël train bi te tegu ci yoonu jàmm bu leen fàtte denc seen i ticket fu ngeen toll ndax da ngeen ko war a valider waat su ngeen yéegee ci gaar bi ngeen di wàcc suñuy ndaw yi ñuy teg ci suñuy gaar ak train yéen lañu fi nekkal ngir jox leen tegtal yépp yi ngeen soxla am na itam ay takk der yu nekk ci suñuy gaar ngir di leen aar ak di xool ndax yi tegu nañ ci yoon ngir mën leen dalal ci anam yi gën gaaru ndakaaru te ngéej ak baat ñi yépp la ñu defaraat bu mu bees tàkk boole ci taxawal yeneen fukki gaar te nag sóoraale nañu bu baax a baax waay laago yeeg yu am jafe-jafe demal seen bopp bu ngeen bëggee yóbbal ba li ngeen di soxla ci yoon wi ngir neexal seen tukki ak teer yombalal nañu leen ko ndax dinañ leen jagleel ay commerce ci gaar yi ñu ngi leen di xaar ci suñuy gaar te di leen dalal ak jàmm Train Express régional Karongué Gaouaye ànd ak jamono Lagi mu ngoog doy na waar. doy na doy na Jabas ngi lay nuyu. ngeen sama ñeeñu du pour jàkk pour jàkk pour jàkk la tudd. da baax maa ngi lay ziar. doy na waar daal suñu papa la dem ah namu ko de. allo kooku ngay woo ko allo. salam

papa. oustaz maa ngi lay ziar ñu ngi lay ziar bu wér oustaz. ok ñu ngi lay delloo ziar. oustaz na ngeen def ak yitte yi. ah ñu ngi góorgóorlu rek ba xam la. na mën la de. maa la raw maa la raw maa la raw. Badiane alhamdulilah Badiane. alhamdulilah. alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf papa déglu nga suñu tësu tey ji. waaw mu am ci fu leen sorewul dara di Pout Diack. di Pout Diack. waaw muy diggante euh, ay géer ak ay géwal nuñ ko mën a waxee ñu baal ma. man Clara dañu dañu ni daa am bu dee ñu ni kenn du ko suul ci sëgg géer. <laughs> laaj nañ ko rafetal ah di man la oustaz dafa am géwal bu génn àdduna géer ñu ni kenn du ko suul ci seeni sëg. ñu ut seen sëg bopp ñu ni leen dëkk bi ci boppam lañ bañ. ñu denc fi géwal maanaam dëkk ba dañu ne. géwal duñ ko fa denc. nga ñu baal ma ci terme bi ndax da leen di um. Mm-hmm. waaw mm-hmm. nag moom. loolu nag lañ bëggoon sa xalaat. lu ciy xalaat l'islam. dañoo wax ni. géwél duñ ko fa denc. waaw. ci seen armeel yi. ci seen armeel. waaw mais dafa am lu ñu seetluwul. Mm-hmm. asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu leen nuyu. Mm-hmm. ziyaare leen. di nuyu kilifa gi muy boppam. Eh, da di mën a wax nag. ma mën a xam ndax maa ngi ci ligne bi wala nekk yaa ngi ci ligne bi yaa ngi yaa am direct ci ligne bi. waaw da di ànd ak man ma mën a xam. waaw kay. waaw mm. kay. na dox. bu fekkee ne. Mm. suuf si yàllaa ko moom. Mm-hmm. jàmm bi yàllaa ko moom. Mm-hmm. ñoom ña fa dëkk yàllaa leen moom. Mm-hmm. kon yàllaa boole lii ñëpp nañu bokk ku dee ñu suul la ci suufu yàlla. su fekkoon dañoo am seen yàllay bopp géwél hmm. yi am seen yàllay bopp <laughs> konoon sañ nañ ni ñun bu ñu de ku ci géwél yi dooñu ci suñu armeel <laughs> waaye nag géwél amul arme amul buru buru buru boppam yàllay boppam amu ko amul yàllay boppam géer amul yàllay boppam déedéet déedéet lépp aada mm-hmm. aada ju ñu indi la ba mu dem ba ëpp doole mm-hmm. mais yow géwél bu la maye xaalis nga jël. Hmm. ah mais kon kay eh, gannaaw bu la maye xaalis nga jël ñu suul ko suuf yàlla kay aayu. Hmm. kon nag ñi nga xam ne dañuy bañ ku suul géwél foofu. Hmm. ñu ngi ci erreur. ñu ngi ci erreur bu mag a mag a mag a mag. parce que dañoo fàttali suuf si yàlla ko moom. fàtte ne jàmm bi itam yàllaa ko moom. mais kon ki souffre yalla niñ fa sul jamu yalla deug deug niñ ko fa sul mais bu fekke ne dañu bañ duñ duñ fa sul dewel buñ tay ak yalla dañ lu ñu laay. danañ am luñu lay parce que su la tous ëllun na yow isin ani naim yalla neena na bu ëllëgee dina la li nga def foo ko teg. kon nag dewel jeer tek lawbe yépp ay métier la lépp ay. yitte la yoo xam ne dañ leen indi. géwél mooy géwél mooy wër mooy koo xam ne géewal leen ko mu wax ñu xew. Mm-hmm. géewal leen ko ñu ne xew. mooy journaliste. loolu moo doon géwél. Mm-hmm. law bi day day yett. Mm-hmm. dëkk day day day defar leneen. donc kon euh, yooyu ñu bëgg a indi. ay erreur la. nañu bàyyi jaamu yàlla bi ñu suul ko ci suufu yàlla bi. dëgg la. nañu bàyyi jaamu yàlla bi nañ bàyyi xel li may wax nañ bàyyi jaamu yàlla bi suul ko ci suufu yàlla si. dëgg loolu muy dëgg. waaye ñu jël jaamu yàlla tere ko suufu yàlla si. ah, ah du ko bàkk nañ njaag nag. waaw te njaaga nga fa nag te njaaga nga fa nag. bàkk <laughs> nañu njaag. suufu yàlla. jaamu yàlla. yàlla bu dundal jaamam ba mu matal. Hmm. mu ne mu jël ko nag rek ko. Mm. ñu ne dañ koy suul ci suufam am ñu taxaw ne suuf yàlla duñ fi suul jaamu yàlla mm. ah bak ngeen jàng nag te njàng nga fa baax na bak ngeen njaag jaaduwul su leen neexee jaaduwul su leen naqaree jaaduwul waaw jaaduwul fenn mm-hmm. parce que suuf yàlla kenn du fa bañ a eh, suul jaamu yàlla déedéet jaamu yàlla bi faatu suuf yàlla si ñeñ ko fi suul gën a kenn du ko suul fii ah. parce que géwél la waaw parce que géwél la. Hmm. yow yaa ma sa gis ci alxuraan fu ñu tuddee géwél. déedéet. ko gis. Hmm. fan yow kay yéefiir lañ la wax ne buñ ko suul sa sa armée jullit na hmm. yéefiir yi dem ci yéefiir ya jullit yi dem ci jullit ya waaye jullit comme yow géwél rek nga ne kenn du ko fi ndax géwél la. <laughs> loolu tegewul fenn. déedéet bu ko def nag yaa ngi ci erreur soo ko defee gaawul nga génn ci. su la rëy jàppee nag ba nga continuer ko. ne lii moom lay def boo dajee yàlla da nga xam looy wax suuf si moomu leen ko. dëgg dëgg yi moomu leen ko. dëgg yàlla moomu leen ko suuf si suuf yàlla la. Mhm. ay jaamu yàlla ngeen. ku dee nañ ko suul ci suufi yàlla si. Mhm. dëgg la loolu mooy dëgg. Mhm. waaye nag seet ay parparlu ñëwee la kii rek tëgg ak uudeeg law beeg kii kenn du loolu mooy lan. loolu ñëwul ci téere. ñëwul ci benn téere. kon nag nañu dellu ginnaaw yàlla dellu ginnaaw suñu delluwul ginnaaw yàlla na ko jëfante ci ñoom. dëgg la de parce que moom ñu suuf si ay jaam lañu ci dee jaam la ci moom suuf si yàlla la yàlla moo rey jaamam ne nañ ko suul su ma amaatewoo fa akbaroo loolu la alxuraan wax mm-hmm. su ma amaatewoo fa akbaroo mm-hmm. ku dee suul leen te papa nga baal ma mbir mi dafa dem. ba ba jege sax luy laal ngëm-ngëm yi. ndax boo dégloo euh, man nga baal ma mbir mi dafa dem sax ba mel ni luy laal ngëm-ngëm yi. ndax soo dégloo sànq euh, moom ki doon wax géwal la. mais ci waxam da ngay dégg mu ne ñoom seen jumaa sax duma fa julee ñoom seen jumaa sax duma fa jullee maanaam dem nan bala nga xam ni mooy ngëm-ngëm ga di diine ja xaajoo nañ ko diggante géwal yi ak géer ya su ma mënee interpréter li nga xam ni moom la waa doon waxee sànq. waaw xam nga. loolu it beneen erreur benn affaire ñëwaat na ndax jumaa yàlla jumaa yàlla innal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada loolu alquran innal masajid lillahi jàkk yàllaa ko moom jëwel bi yàllaa ko moom fala tad'u ma'a allahi ahadan bu leen woo kenn bu leen jëriñ kenn jël leen yàlla kese ngeen woo ko ci jàkkam waaw néegu yàlla. Hmm. nga tere ko jaamu yàlla. Ah. jaamu yàlla du fa julli. Ah. ay de mais kooku amuloo wax nañu def ndànk nañu demee sago bañ a demee aada aada baaxul. Hmm. Hmm. aada baaxul. te li nga fi dégg yëpp aada la. yow jumaa yàlla ko bi du fi julli mais foo ko teg suuf si yàlla moom nga ne fi suul géwél foo ko teg <laughs> yow moomu ko wax. ak géwél boobu yéen ñëpp yàlla leen moom yàlla moom suuf si nañ fi suul jaamam yàllaa moom jàkka ji nañ bàyyi ku bëgg julli nga dem julli kenn sañu koo tere nit kenn sañu koo tere nit ah kon nag ñaari mbirango ñaari mbirango mhm. donc euh, dafa am loo xam ne di ci demee xel dafa baax ci boo demee bay jiite juma wax dëgg yàlla waratoo nag wut ay parparlo. déedéet yow ngay jiiti juma. Ah. en tant que imam. Ah. jiiti juma di jàngu fen fen fen fen fen. bu géwél dugg ci yàgg. Ah. Hmm. jàngoo ko fen. amul fu mu ko jàng. Mm-hmm. waaw bu géwél dugg ci yàgg jàng ko fen. amul fuñ ko wax. amul amul fen. fuñ ko wax amul fuñ amul. amul jàkk yàllaa ko jàmm yàlla yàllaa ko moom mais lu tax nga tere nit jaamu yàlla jaamu yàlla bi mu ñëw ci jàkk ji wax dëgg dëgg yàlla jaamu boo ko tegoo ko fenn dëgg yàlla jaamu donc nit ñi dañu war a demee xel uh-huh. nit ñi dañu war a demee sago nit ñi dañu war a dem tey uh-huh. nañu xam li yàlla moom ñu bakkoog jaam uh-huh. xam li nu moom ñu téye ko seen bopp li yàlla moom nañ ko bàyyee jaam yi suuf si yàllaa ko moom dëgg la papa yi euh, yàlla ko moom. dañ mhm. ci ci côté solution. la laay jéem a ah. ci côté solution ma ne laay jéem a tàbbi ak yow. ndax euh, dañu ne ñoom boo déggee seen wax nee nañu euh, def nañ leen ko benn yoon ñu sede maanaam denc seen néew feneen ñu defaat leen ko barki Dembo Ndiaye ñu sedewaat yóbbu nañ néew bi suuli ko fa mu jóge woon maanaam moom yaayam fa papam jële woon takk ko foofu la delluwaat denc fa yaayam mais mm. nee nañ yàlla na yéex bés bu fa keneen dogaatoon dañu leen di rey mbaa ñu rey leen mais néew ba moom du génn ci seen dëkk ba nga xam ne fa la ñuy yeewoo léegi laataa li ci am nga xam ne mën na andi jafe-jafe ba dem sax foo xam ni weesu na dëkk boobu ñuy waxee ndax dafa dem ba laal mbiru waaso est-ce que mënul am benn solution boo xam ni daañu ko ci indi muy autorité yi mu jëm ci wàllu diine aussi ci euh, la nga xam ne moo doon saafara ba ba duñu àgg foofu. Euh, illa ma saa wa anna saa yow sawfa yura yàlla nee na fuñ la suul fuñ la suul sa jëf fekk la loolu rek la. Mhm. nañ leen ko bàyyee jarul ay coow yooyu jarul ko fu ñu ko suul rek jëfam fekk ko fa. Mhm. wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saa yow sawfa yura mhm. fu ñu suul nit ki rek jëfam fekk ko fa. ak fu ñu ko mën a suul. dafa rafetul nag ay nit. sëg yooyu bàyyi nañ sëgu géer yi dem ci ñoom fa dëkk mais dañ ni leen ba tey sëg yooyu ngeen tamit du ngeen fa denc ndax dëkk bi benn la dëkk bi duñ fi denc géwal waaw dëkk la ñoom ñi la mais dëkk lañ war a bàyyi tere nit mais bul fàtte ne maanatu suuf si yàllaa ko moom jaam bi nga xam ne faatu na yàllaa ko moom ñoom ñi taxaw fa ñu taxaw daal leen moom. kon nañu calculer yàlla bañ a xalaat seen bëgg-bëgg. parce que bu ëllëgee yàlla dina ko lu tax ñu suul kii ngeen ne duñ ko fi suul ñu ngi ko toxal fële lu tax ñu suul kii ngeen ne duñ ko fi suul dañ fa toxal fële dama lay laaj yow yaa moom suuf si wala maa ko moom. yàllaa ko moom de. loolu la yàlla wax. Mhm. ndax yaa moom suuf si walla maa moom suuf si. su dee yaa moom suuf si nga wax ma. su dee moom suuf si nga wax ma su ma moomee suuf si lu tax nga tere ma suul fi kii ay géwél yooyu ay dëkk ay óoli yooyu ay ay métier la lii lii lu lii lii ay ay ay la rek aada juñ fi teg la donc loolu dafa nekkul lu jaadu nekkul lu tegee ci yoon même loolu sax xale yu ndaw yi xam nañ tegewul ci yoon yu ndaw yi xam nañ ne loolu tegewul ci yoon. dëgg la diw dee na diw ci eh, eh, dëkk bi. wala duñ ko suuf suñu jàpp suñu suuf mais lu luy loolu suuf si yaa ko moom suuf si moomoo ko. déedéet moomoo ko yéen ñëpp yàllaa leen yëlif jàmm la rey moo ko moom rey na ko bàyyi ko ñu suul ko ci suufam voilà mais nag doone duñu ko suul fii ndax wuy géwél la dugg na fii génn muy géwél géwél di gën géer nga naan géwél la géwél dana gën géer. wallaahi ah te géwél fan lañ ko jàng fan lañ ko bind fan lañ ko indi. gisul gisul ko fenn ilimaan jooju jàng ji jiite moom lay waxal na ma wax fu mu gisee éwén na ma ko wax ci alxuraan fu mu ko gis bu mu mer nag. bu mu mer nag na ànd ak sagoom wax ma fu mu gis alxuraan. mu bind fa géwél du ko wax du ko wax uh-huh. amul amul amul. ñu fay ràññee géwél ak géer amul fenn fu ko yàlla bind. déedéet. mu xam nag ne léegi suuf yàlla jaamu yàlla jeex na. Mm-hmm. waaw dëgg la dëgg la. allo dëgg la dëgg la allo ñu ngi lay dégg. waaw kay. ñu lay dégg papa. waaw waaw léegi itam léegi itam. Eh, oustaz eh, oustaz ay yëfu aada yéeg. oustaz yëfu yooyu yooyu baaxul. mais oustaz ko dég dégagé ba mu set wecc. autorité yi nga xam ne ñoo fa nekk. di autorité yi nga xam ne ñoo yor diini ji. wala mm-hmm. autorité yi nga xam ne ñoo yor politique bi nañu wax ak ñoom. Mm-hmm. ne leen lii kat bu mu jëmati kaw. lii bu mu amati fii. suuf si yàllaa ko moom jàmm yàllaa ko moom yéen yàllaa leen moom kon nag bàyyi leen jaamu yàlla ñu suul ko ci alalu yàlla moo gën. oustaz mu jeex. oustaz autorité yi nañ ci wax. waaw oustaz. parce que li wax dëgg la bu amaatee ba ñu suuli ko mu amaat mën na indi problème. dina indi problème ñoom loolu la ñu wax ah. sax ñoom loolu la ñu wax sax. oustaz. waaw loolu ñu wax sax. oustaz xam nga euh, euh, ki ki ki génn àdduna te ñu ne kenn du ko fa suul. ah. ma ne ki faatu te te ñu ni kenn du ko fa suul. ki waaw ma ne ñu wax ci kaw dégg waaw. ma ne ki génn àdduna te ñu ni kenn du ko fi suul. waaw. moom itam doomam ci boppam nee na nangu na d'accord bu ñu ko fa suul waaye moom itam. Ah. gedd na seen jàkka ak seen i juma. seetal loolu. waaw moom itam comme geddal nañu ko yaayam ni duñ ko suul ci sëg yi moom itam geddal na leen seen jàkka ak seen juma. man loolu nag moo ma choqué xam nga loolu itam day xajamal li lislaam doxee seen juma ñoom. mais mais loolu loolu moom bu mu gedd déedéet duñ ko réglé parce que am na loo xam ne wartu wéy dëgg la wartu wéy dafa warul a wéy mënut dafa war a yem hmm. ñoom ñi ko def teguñu ko mais moomuñu jàkk ji hmm. waa nan masaajida lillaahi hmm. jàkk yàllaa ko moom jàmbi yàllaa ko moom nañu teg jàkk ji fële teg suuf si fële te jël seen yëfu bopp ne du ma may sama mbubbum diw du ma may sama dàll diw du ma may sama mbaxana diw sañ nga ko mais nag li yàlla moom jàkk ji. Hmm. suuf si walillahi miiraas samaawaati wal ard walillahi miiraas samaawaati wal ard yàlla ne suuf si maa koy donn asamaan maa koy donn kenn du ko donn kenn ku ne fa nga tabax sa kër su la neexatul danga koy jaay keneen mu dëkk fa waaye mënoo toxal kër ga. kenn mënu koo toxal. dëgg ni nga xamee ne mënoo toxal kër nga war a xam ne borom am na borom. dëgg la wallaay dëgg la. am na borom. kon nag jàkka ji suuf si nañ ko teg ci bërëb ba yàllaa ko moom. wa annal masaajida lillaahi. wa lillaahi miiraasu samaawaati wal ard. loolu alalu yàlla la ni bàyyi li nuy def nanu bàyyi li nuy def. nanu bàyyi li nuy def ilimaan ji moomul jàkka ja fi julli moomuñ jàkka ja moomuñu suuf yàlla la jàkka yàlla la nañu mm-hmm. bàyyi yàlla jaamam jaamu fa jaamam bu dee ñu suul ko ci suufam. dëgg la. looloy looloy dëgg. wallaay wax nga dëgg Badiane. mais mais leneen lu ñu fii jaamu fi amul leneen lii mooy dëgg. waaw lii mooy dëgg waaye duñu suul fii ñuy gedd jàkka ja mais ko dootuñu fa julli non pour la. waaw le fait que mu ne ji seen jumaa rek. bu fekkee ñoom Mm-hmm. dañoo wax na ñoom seen jumaa la yàlla génn na ni waa ji génne. Mm-hmm. la. yàlla génn na ba rek. ni ci waa ji su fekkee ne dañ ne néegu yàlla dañ maandu. waaw mm-hmm. jaam yi ku bëgg mu jaam. suñ ne sunu néeg la nag ñoo ko moom léegi nekkatul jàkka yàlla. déedéet seen i néegu bopp la nekkatul benn jàkka. déedéet du jàkka du dara. Mm. su fekkee ne dañoo nangu ne yàlla moo ko moom. nañu bàyyi ñëpp ku julli ku julli dem ku julliwul yaa xam suñ ne nag ñoo moom jàkk yi nag nañ jël seen jàkk yàlla toog di leen seetaan. dëgg la mhm. dëgg la ah, mi. Mhm. dëgg la de. Ah, ok jërëjëf Badiane. leer na de. jaajëf papa. waaw kay baax na. jaajëf. waaw kay jërëjëf. waaw kay Badiane ñu ngi lay bu baax a baax kontaan nañu yàlla yàlla guddal fan bi. amiin amiin may la wér sàmm la te bàyyi la suñu kanam. amiin amiin amiin disponible nga ku baax nga. ñu lay jox rendez ci kanam tuuti ci télé bi dama waxtaane ko incha allah 11h. incha problème bi la ñuy traité foofu aussi daan ci ànd ak moom. moom suñu papa oustaz Iran Ndaw disponible baax lool dama ko waxee tegu ci baat macha allah alaaji ñu préciser ne waxuñu ne ñoom euh, géer dañoo tere gëwali seen seen seen seen juma dañu ne boo dégloo waxu waa ji doon wax sànq

te am na nu muy mbir mi nuñ ko dul saafara bàyyi mu explosé du ñu moy kenn kenn ci ñun du ko moy ndax ndax xeex bu amee nga bàyyi muy dem di dem xamoo mbir mi kan lay laal ak fu muy teeri jee fu muy teeri jee te man waxi waaso ak waxi diine dama ko ragal ci réew man dama ko ragal ci réew autorité yi dong ñoo mën a tranché gis nga lii nii du événement du événement mais dafa ñaaw cest c'est-à-dire autorité administrative yi nekk ci gox boobu. kay euh, ñoo ko mënoon a régler ci façon bu gaaw te simple. Mm-hmm. lii soriyaanu lool ak lu mën a ci fi Sénégal toll ak fi réew mi toll. Mm-hmm. parce que benn cas boo xam ni. Mm-hmm. Euh, yomb naa lijjanti. c'est-à-dire ñoom dañoo bokk nekk ci dëkk bi dañoo bokk nekk ci dëkk bi. ah mënuñoo fexe ba buñ leen utalu ay së bu fekkee nanguwuñ ñu suul leen ci seen sëg yooyu mënuñoo fexe ba du ñu fa am ay sëg ñu dëkk ba. oustaz wax na ko léegi suuf si suuf si yàlla ñaareel bi ci des ah man de bu ma nekkee autorité administrative foofu ñu mel noonu bu amee dinaa def li yoon wax amul kenn ku yoon may sañ-sañ. nga ni ki duñ ko sul ci sëg yi parce que ab géwal la parce que no xol la parce que nangam parce que nangam la té na da ñaaw mhm. da ñaaw dafa terre à terre mhm. fa ñak fayda deug deug dafa ñak fayda mhm. japp na ni nak euh nag euh, mantulay sëb la dé ak ba na nga ci biir de ki géwal bi ni njëkk faa dé déedéet ana ñi déwon njëkk ñi na ah, baax na jarna na laaj de nee na ñoom. waxuñu na ñoom. Uh-huh. bu njëkkoon. Hmm. buñ daan denc seeni i néew. am na fu ñu leen daan denc ci côté bi foofu. mais buñ ko dencee. ñoom bu ñu xëyee. dañuy dem surveiller yi fa ñu denc. Hmm. ndax bu ñu yeewoo dañuy gis ne ci guddi waa dëkk ba maanaam géer yi ngeen baal ma ba tey rek. dem nañu sulli caxat caxat yi am lu luñ ca def. yaa ngi dégg. Hmm. nee nañ ñoom seeni papa ya njëkk faatu ak seeni yaay. bu leen daan denc ca wet ga foofu dañ doon gis ni bu ñu xëyee dem di dañ daan xëy di dem di xool dencukaay ba ndax nee na dañuy gis ne guddi gi bu ñu xëyee ñoom beneen dëkk ba dañuy ñëw ñoom géer yi am lu ñu def ci biir bàmmeel yi maanaam caxat-caxatee Mantoulaye am na a am na am na ay noo diide ah c'est ça moo tax ma ne am na ay noo di am na ay noo di Man vlay, dosye bi am nou lojou lidek Gis nge, nini ko treten yon, nyep moun yon akwa pres, nyep Demoun yon ou fon de chouz Mer bi yon fwa ganyan gen adouna, nyekoufa gen adouna Jitjou li moun fe sorg am Mousou, jok jekoufa am dalan Kes ki se pas ?